loolee moo doy ne la ñu sa fekk ci ay photo xale bëri na loolu ak ba ñu ko laajee la mu tontu loolu lépp ma ngi ci journal bi yéen a kaay gi di Vox Populi xëy di ñu xibaar naan ñu élection législative yi campagne bi gars ko lu toll ci juróomi minute yéen a kaay gi neen daat nañu koy tekk ba tey ci journal bi di 24 heures nee na yi nga xam ne ñoo nekk ca diwaanu Chine ñoom duñu bokk ci élection yi la ko waral mooy coronavirus ba mooy yokk ca réewum Chine yokk goo xam ne jéggi na dayo yéen a kaay xibaar naan ñu li nga xam ne moom lañ fi tere lu jëm ci wàllum mars ak wàllum doxam ñaxtu ak yu si aju bëri na loola loolee moo tax ñi nga xam na ñuy waa ONU ñoom nag tiit nañ ci lool ba pare nag sàkku ñu bàyyi askan wi may leen seen àq ak seen yelleef ñu daal di koy jëfee yéen kaay gi di bés bi ñu xëy fekk fa maître Doudou Ndoye mi nga xam ne ay jamono nekkoon na fi ministre bi ñu dénk wàllum justice moom nag nee na élection législative yi ci Sénégal ak tension bi nga xam ne moo fi am ak ni élection ko waroon toll ci benn at dogal bi nga xam ne nag moom la juróom-ñaari charge yi jële ca conseil constitutionnel Doudou Ndoye jàpp na ne dogal la boo xam ne maanaam bu jaarul yoon la yéen a kaay gi di libération xëy lu ñu xibaar naan ñu ci diwaanu Kafountine foofee nga xam ne ak gaal moo fa këpp woon ndax dafa am ñoo xam ne ñoo doon dem bitim réew am na juróom-ñaar ñoo xam ne teg nañu leen loxo ndax dañoo jàpp ne mbir mi ñoom ñoo ko organisé woon yéen a kaay gi di Vox Populi xëy du ñu xibaar naan ñu Maimouna Dièye mi nga xam ne mooy maire bu Patte moom nag dañu ko tuumal lu jëm ci wàllum détournement ndax troisième adjoint au maire ba moo ko tuumal ndax ñoom nee nañu dañoo toogoon waxtaan ngir nag décaisser lu toll ci 3 millions dimbalee ko ñi nga xam ne ñoom la seen loxo juutul seen ginnaaw ci tabaski gi maire bi may mun a jëyee dem décaissé lu toll ci douze millions yéen gi nee loole la askan wu bëgg mu andi ci ay leerala yéen kaay gi da la ko di jëyee xëy di ñu tàggee ma jëy na juufa mi nga xam ne ay jamono nekkoon na fi maire bu Kaolack nekk membre fondateur bu AFP moo génn àdduna Moustapha Niass ak ñi mu àndal di waa AFP ñoom nag ñoo ngi koy méttaloo yéen kaay gi xëy di ñu xibaar naan ñu kuréel gii di ànd gësama ñoom ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum wér gi yaram ge dañoo maire bu futo fas si nañu continuer nag seenu xeex maanaam City ndax liggéeykat yi nga xam ne ñoom la teg loxo dugal ci kasu ngir nag jéye ji nga xam ne moo amoon ci hôpital Maam Abdou ba ca Tiwaawoona loole moo tax ñoom ànd gësama fas yéene amal nag ab sitina waaye danañu sa toftal ay gréwa ndax dañoo bëgg liggéeykat yooyee ñu dugal ci kasu bi ñu daal leen di ndax ñoom dañoo jàpp ne ñooñee seen yoon nekku si yéene kaay gi di Walf Fadjri xëy dañu xibaar naan ñu tabaski gi bu weesoo nag xar nga xam ma ngi ciy marché ñu leen di fay loolee ab business la boo xam ne ma ngi dox bu baax a ci ñooma yéen kaay gi xëy duñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum dund gi nag ginnaaw bi mu yokkee ba ñëpp xam na yokk na ciment bi nag moo yokk ndax tonu ciment bi 68000 la a léegi dem na ba ci 76000 mbir mi ni nga xam ne moom la yokkee moo jéggi dayoo yéen kaay gi di esata ñu xëy fekk fa El Hadji Ousseynou Diouf nee na na jamono ji bu sañoon Sadio dina jël ñetteelu Ballon d'Or moom El Hadji Ousseynou Diouf nee na Sadio Mané jaay na destination Sénégal